maa ngi koy jaajëfal bu baax mbay guy gi la grand champion. maa ngi lay siyaar. doom day maa lay bëggee di la ñaanal jàmm. mbaa yaa ngi am waaw maa ngi sant bu baax. looy dundee koor gi. koor gi ah waaw comme gaa yi niñ koy dundee rek. waaw woor jaamu yàlla rek. boo dogee dem entraînement ñëw mooy lool ne ci jàmm. waaw bu baax a baax. Ah, mbay yow ni nga daan lekkee xam nga nen ak xaal ak lépp koor gi yëpp jot. ngay ngay muñ lool. mais lii yëfi yàlla la nag yàlla lu mu digle dañ ko war a def. moo tax luñ mën a mën a lekk bu dikkee ñu xiifal ko. ragaluñ lool waaw. gars yi di yëg nga koy bu baax. fii gën yaa ma gën a xam ñëpp benn lañ. da ngay jàpp ni kii lim man war naa ko mën a man rek nit loo jéem man ko. mais boo jéemul doo man dara. mais ñun moom mënu xàmmee ba léegi ñuy woor. waaw. lan nga wax say moroom nawle mbëri ci ci weer bi. ak lan nga leen di wax ci après koor gi nan lañ la mën a gisee. sama booy yi woorul rek. xam nga ñoom Talla Sarr BMW ñoom Maf. amel la grosse mais ñoom xam nga wóoruñu. waaw wóoruñu te damaa miti damaa war di woor. da ngay woor ñuy añak lépp. Baye sama xarit bi xanaa dina day woor kooku yaa ma xam ta turandoo Baye Laat la daan na ah. xarit deret day woor maa ngi moom ay ne chaque jour du faat waxtu. Uh-huh. waaw ñoo yem daal ñun daal même bu koor jàllee sax duñ faat waxtu julli jaamu yàlla entraîné ne ci làmb kese ak liggéeyi waaj. waaw. yow kañ nga fas yéene laale. man sama combat ah waa ji waxagul dara ah Ibrahima Diop a ko tëg xam naa nag bu jógee ci combat Maama Lamine Garga 2 ñun ñoo ciy topp. waa ñu dàmbale waaw yëpp dañoo dajaloo nga jël Siteu de lu tax nga jógee ci Zarko daw laal kee armée bu benn barak. waaw armée champion la armée man taamuma sax bëreeg moom sama papa bare joon na ne kii ngay bëreet. Hmm. xam nga li ma la moom moo jël avance bi yëpp dal maa rek ne ma armée ngay bëreet jël ah, combat bi taxaw na demal signé. loolu dong laa ci xam mais bëggumaan sax a bëreeg armée billaahi communication yi nga doon indil yeneen bëri di ko indil armée mënuma ko indil parce que mooy lool ay lañ maa moom mais bu dee ñee ñoo la may da ngay jaay sa laam ay grand lañ waaw xam nga li ma la moom maa ngi moom amul wax ju bëri lu may jëf la nit ñi gis mais dootu du ma fi ne dax di di wax wax ju bëri non garaawut kooku ay mbiram du jafe <laughs> ay mbiram méttiwul. saraxam yomb na. yomb na torop sax balaa ngeen xam dara ñu taxaw ci géew bi. ñeme ngaa xeexam. non xeex ak yëpp. bi ci bii lañ may xamee. technicien la ci wàllu bëre bu benn baax. xam naa mais combat bi ci lañ may xame man. parce que da ñu bëri dañoo réere mbir ci man lu bëree bëree bëri te moo tax bi dama bëgg a ñëw wane sama bopp ci xeex ci bëreeg lépp dinaa ko jekku sax war koo daan te du ma ko daan waaw ba pare ba pare ba bëgg koo daan door koo daan. waaw loolu maa ko jël décision boobu. jóge ci defet fas yéene ñëwaat di bëre ta ñam nga ko booy ñëw nan nan nga war a ñëwee ak mbooloo mi ngay dégager di ko indi stade. waa mais nit ñi ñëwee dañuy waat suñuy bokki bawol bawol rek ak waa Medina Medina man la ma fa am ña fa dëkk sax amuñu ko fa ku yor say bët xam ci dara. kay xam naa ci waaw kay moo tax nag dama leen di gën a gërëm rek di leen ñaanal jàmm baax li ma seq ak ñoom la nag boo ma fekkee Medina da nga naan kii du mbër maa ñoom yaa ma gën a xam. loolu la rek te dara du ci changé nag bu ma ñëwaatee dinañ xam ne ñooñ toppee ñu ma victoire ak defet dañ maa bëgg te yàlla daal waaw. ñu wax ba pare te duñu yeggale gisuñu gis nañ lu rafet li ngay def ci koor gi. vraiment benn jaamu yàlla bu xiif. nga jol benn tàndarma jox ko ko mu dogee ko loolu xamuñu lan ñaata la la ko suñu borom mun a fay ci yiw lan moo tax nga nga xalaat loolu di ko def. waa loolu su yàgg naa koy def depuis ma dëkk Medina ba léegi maa ngi koy def koor gi koor boo mee sama koñ damay dajale booy ñu teg kafe gi dem jëndi mburu ñëw jënd tàndarma yëpp def chocolat bër teg defar ton ak yëpp. bu ndog jotee rek ñu xel xelli café gi jox gaay ci tëli bi di leen kar te defe naa noonu la ko koñ yëpp di defe te ku ne ci rek lu baax nga war a xool roy ci di def lu baax comme noonu la rek looloo tax ma dajale booy rek yaa ma gën a xam ñu koy defee noonu chaque année. leer nga nag de. non leer amul de koor gi koor kuy woor da ngay leer. laaloo bee laaloo dara bopp bi sax boo xoolee macha allah. non woor da ngay leer. ci àdduna. koor seytaane du dox koor dara du dox. koor boo ci liggéey nit sax du jàpp. muk ci àdduna. Eh, sa bër yu bari xamuñu lool. moom ñu ngi sonal seen bopp koor saytaane du dox yàlla day tëj buntu yëpp bunt yi muy génne mooy bunt jaamu yàlla ngay ñaan mu lay dugalal. kese du dox ku la liggéey du dox ku liggéey du dox kese. <laughs> moo tax instant <laughs> nice. <laughs> maa lay siyaar bu baax Bada. naka ma yaa ngi jàmm. sant yàlla baa ji de. dëkk ah, dëkk baa ngi nii rek. Modou xarañ lo waaw Modou mi ngi fi. Ah, mu ngi waaj ah, waaw mi ngi waaj. waaw mi ngi tane de. waaw mi ngi tane ñu ngi sant yàlla mi ngi tane instant moom. Mm. waaw. ana ana ana kee euh, Gora Sock. Gora Sock sama nijaay mi ngi fi. Mm. waaw sama nijaay la. Talfa mi ngi fi di préparé. Mm. waaw mook aada booy bool ñoom ñëpp ñu ngi préparé. booy bool moom it ah, ah, mi ngi sa diggante xale la dama gis ku ci nekk buy compété da ngay ñëw ànd ñoom dooleel leen yéene leen ndam lan la. non xam nga rek dañu ay mbokk aada boo gise aada may ànd moom. magamu mu ndey ak baay moo doon ànd ak sama mag ba ba niñ tol ñoom ñaar ñooy ànd. aada ñëw jël cër boobu maga bi joxoon sama mag mu joxaan ma ko. talfa ñoo bokk benn dëkk dañ moo góor a ndijaam la mais maam moom ñoo bokk benn dëkk. talfa amee gis ni ñoo bokk benn dëkk bokk benn dëkk ñoo bokk fenn fu ñuy yeewoo góor a sama nijaay la waaw ah, loolu moo tax bu ñuy bëree may sonn ci ñoom du dara nag du xaalis du dara mais ñoom daal wax dëgg yàlla sama deret lañ daal cofeel gi daal waaw cofeel gi la ñu dugg ci biir